Leewtoo Reug Reug Thiaroye Cap Vert Pape uh-huh. Yekini yi uh-huh. Reug Reug moo yor ngemb weex li moo leen féete noonu ci kanam Reug Reug Pape Yekini ah Pape dox ci koom daje nañu Pape Yekini ngi dóor Pape Yekini ngi dóor Reug Reug ngoobu ko lalli na ko sukk na ba tuwam moo na ko tey wër ndombo xew Reug Reug wër na ko ndombo tey journée wër ndombo la wër na wala waaye kii daa toog sa kaw di.